des entreprises étrangères tey bi crise bi amee lu ñu def ñu ci bëri ñu ngi débarrassé wu ak seen i seen i seen i employé mm-hmm. opérateur ak compagnie de voyage ak ñëpp dañ lay wax ñëw sax léegi dañ leen di nax dañ lay wax de xam nañ booy xiif nañ mm-hmm. dañ naan la départ volontaire négocié parce que l'avenir est pour tout le monde actuellement mm-hmm. lan la ñuy wax départ incer xale boo fi ne quinze millions mu gis lu bari ku fi tiit am ab CDI bañ na la kaay ñu defar la nekk def jox la benn quinze di nga ko taal ci ñetti fan di taxawaal dëgg la réfléchissez fii ñu nekk kenn moomu ko du jeunes yi. Mhm. c'est c'est à la politique de l'État moo war a dimbale tey li may wax nii de domaine xam nañ ko état xam na ko fonction publique xam na ko surtout les communautés les compagnies étrangères les entreprises étrangères ñi ngi nax xale yi di leen def di leen négocier ay départ pour lan pour se débarrasser du fisc. Mhm. pour se débarrasser de tax créer encore du chômage l'État est complice et observe bu ñu paree lu muy def yokkaat encore des chômeurs. Mhm. au contraire dañ leen war a encadrer xale yooyu dañ leen a war a renforcer hmm. syndicalistes yi ci liggéey dañ leen war a dimbale ñi ci yor ay contrat resté je préfère nekk ci entreprise bi topp ko ay bor ko entreprise bi bàyyi ma ma dem may taxawaat du ma xamaat ku may xëyal hmm.